jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ jëfe diineem ngoram di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram baax nangoo muñal sëriñam barke mooy may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diineem ngoram di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm. jigéen ju baax nangoo muñal. sëriñam barke mooy cëram. jigéen ju baax nangoo muñal. sëriñam barke mooy cëram. awuzu billahi samir alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ginnaaw ba ñu santee yàlla kennal ko ci nguuram gi julli ci ki tax mu amal lu temi bira dëgg moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy ñaari wayjur ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara macha allah tey nag seen émission ëttu jigéen ñi ñëw ci beneen anam macha allah tey nag suñu découverte ñu ngi fii ci xadara bu tedd bi ci Tiwaawan waaye fan ci suñu kër maam maam Aminta Si mu sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu bu ñu nee maam Aminta Si nag macha allah xel yëpp dem ci koñ jàkkam tey nag ñu ngi fii Tiwaawoon comme ni leen ko waxee léegi fas yéene jàkkaarloo ko sunu maam sunu soppe fas yéene waxtaan ak moom rek eh, jaar-jaaram ak dundam ak eh, waajuram yu tedd yee Serigne Babacar Seck soxna Astou Kane xam naa incha allah dañuy bàyyi suñu maam mu daal di nuyoo mu daal di dugg ci waxtaan bi. asalaamaaleykum yéen mbokk yi may déglu ak njaboot yi may déglu yëpp ah xëy na li ngeen may laaj sax. daanaka xaw ma ci lu bari ndax man ñu soxnaa sukkan jur maa ci gën a féete ndaw Pape Malick doo nga laa ci mag waaye nag li ma dund ak moom ak Serigne Babacar si am na lu ma ci mën a wax ndax nekk nañu ay wayjur yoo xam ni ñuy teg njaboot ci yoon lañu Serigne Babacar Sy ku dund ak moom di nga xam ni dangay ngay dem ba da ngay rus yow ci sa bopp sax ndax boo amee kilifa mu gën laa teey gën laa yaru gën laa dal boo dee njaboot dangay am kersa sëriñ Babacar si noonu la ko yàlla bindee mu nekk it way juru bëgg njaboot njaboot gi mu jur ak ñi ñu ko dénk ñépp njaboot ci boppam la ko yàlla bëgg lool luy yittee njaboot yi téema ma xam ci moom it dal goo xam ni sutura rek la daal ñaan lu ñaanal leen ma sutura lépp a ngi ci biir sutura ni mu daan toogee ci mbooloo bu wéetee moom dong ci li ma seetlu man mi daan nekk ak moom ni muy tooge ci mbooloo ànd ak dal ak teey bu wéetee noonu lay toogee ndax xam na ni fu mu toll yàllaa ngi janoog moom ku ne xam na ni Seydi Aboubacar si lim amoon yàlla moo ko ko jox muy boroom kersa mhm. di boroom sutura mhm. di boroom yar bu mat sëkk mhm. ah man mi daan nekk ak moom it xam naa ci moom ni dara du yitteem lu may njaboot luy soxla njaboot soxlaa ma njaboot gu mu jur ak gu mu juru li ëpp ci wàllamit xam naa ni affaire lekk moom yitteelu ko nan mi ko daan ndax maa ko daan toggal di ko dëjël boo ko dëjëlee lekk loo ko ca joxul du ko laal sëñ baabakat du lekk mukk loxoom dem ci diggu ndab la du ko def mukk mukk mukk mukk su dee lekk day mel ni xale buy lekk mhm. te moom doo ngay bokk Mm-hmm. waaye bu lekkee bàyyi da ngay defe ne gone gu ndaw moo fa doon lekk mm-hmm. ànd ak yar mm-hmm. ak dal ah man mii nekkoon ak moom it daan na ma digal ci sama wàll jaamu yàlla pour ma fonk ko sama affaire yi jullee may jaamoo yàlla daan na ma digal itam na may dundeek samay bokk daan na ma digal it na may dundeek jaami yàlla yi ah ku fonk nit la ku fonk jaamu yàlla la wax dëgg yàlla Serigne Babacar Sy mhm. boo ko xamee mhm. ah mujj am kers sax yow ci sa bopp yàlla boole woon ko jigéen joo xam ni itam nag mhm. wax dëgg yàlla lim ma jur taxul waaye soxna sukan ku ko xamul itam dégg nga ko demoon na ba ñëpp yaayi jeeg ji lañ ko tudde woon ndax nim daan jëfanteeg doomu adama yi bari na tey ku toog ci sa néeg ba dégg fa maam Mm-hmm. te ndigalam ak ndimbalam moo tax fu jigéen masa mere ci sa néeg ñëw mm-hmm. bu la yóbboo néegam waxtaan na yow ba yegg dal naan baa kër ga kenn xamul ni mere la fa jële nga ni déedéet mm-hmm. mu làmb poosam ni la am jaaral fii nga dem duggi marché toggal ba mu neex te boo ko dee joxe na nga tàllal sa kanam ndax ñam kanam moo koy lekk di la muñloo di la dimbale ba dana tey ku dégg maam ci sa néeg te gannaaw yàlla moo tax nga dégg ko ah noonu mu daan doxaleeg njaboot yi nekk ak moom it mhm. noonu lay doxaleeg njaboot yi mu jur mhm. ah sama càmm yi ma nekkaloon mhm. ñëpp wax dëgg yàlla du ma ni ma bëgg ndax waaye nag wax dëgg yàlla ñoom ñëpp daal amoon nañ ci man yér yërmande ndax ndénkaane yi leen kilifa gi daan ndénk ci man mayit am nañu nu ma daan dundeek ñoom wax dëgg yàlla ndax mosuma cee jéggi kenn lu may ànd ak ñoom ci yar ak sutura ndax moom la ma samay kilifa daan digal noonu laa dunde woon ak ñoom ah soxna sukan bi mu ñëwee fii baayam ba mu koy indi fii dineen fekke wu ko ndax booba judduma waaye nañ àllaa jàmm kan da ko noonu demal mottali ma sama tarbiya ci kër Seex Sidi Aj Malik dama doon tarbiya te sama tarbiya yeggul mhm. ba mu dikkeet la ko baayam waxoon ca la jaar mhm. fu Seydi Aboubacar joxoon foofa lay jaar boot lekkoo njaboot gi nag ku mu am mbokk ak doomi jàmbur ñëpp soxna asukan boot leen ba ñëpp tudde ko yaayi jéeg ji loolu la fi mas nekke di ko doxal Seydi Aboubacar Sy bëgg njaboot luy soxla njaboot mu taxaw ci kenn du ko ne nangam ba mu teg ca dara sama wajuru jigéen daan na ma tere ñaan ni ma amee kolle man ko kat mu ma bul ñaan mukk nit ku baax du ñaan mm-hmm. ñaan baaxul mm-hmm. boo gisee loo bëgg mbaa sa morom yor ko mm-hmm. boo ñaanee sa baay dina la may nga dem jëndi waaye bul ñaan ñett la ma daan digal bul ñaan ma ni ko waaw mu ni ma bul wut lu bayre ndaw du wut bayre ma xam nga luy bayre ndaw man ko waaw mu ni ma joxe mooy bayre ndaw ma ni ko waaw mu ma del jaamu yàlla ni nga ko war a jaamoo mm-hmm. du jégg ndigal lu la sa wax nga nekk ci mm-hmm. mu ni ma del génn sarax itam mm-hmm. yooyu la ma sama yaay daan digal ma ni ko baax na ah bu ma toggalee góor gi indi it góor gi lam cay ñam boo ko gisee danga naan xale bu ndaw moo ci doon lekk ndax moom bu dee lekk day mel ni kuy bokk ak kilifaam tuuti lay lekk te mel ni moom dong mooy lekk musuma dégg itam ci gemmiñu sëñ babakar ci mhm. mu man ma nañ ma defal nangam mukk yaay dem rek choisir defar li ngay defar indi mhm. bu ca mënee ak loxom tek ci loxom bu ci mënee am sutura su tol ni joxe mhm. ko xamni munu munu ko mënu dana fak kanamam bam fakku ba melni da don lek mu raxasu waye dula ni li na dula ni li dula ni lele loolu mom xamna ko ci mom nekkoon na di ko wax deug yalla ko samonté ak solé njabot la man day musuma ko ni papa nangam. Mhm. ba mu digma mhm. bo né papa nangam du deex ba wol abdass Aziz ndax léppam ci loxo Serigne Abdou la nekkoon. kenn du ko jox dërëm ba mu jël ko def ko ci posam Serigne babakar su luñ ko mas du lamb posam mu ko génne ci mhm. lu ko njabot la dala naan demal lo Serigne Abdou rek. bu Serigne Abdou ya. ñeem na koku de mo am lu muy ya, wax. yow yaay wax ak Serigne Abdou li ngay wax. mom paré na ci bu la né wol Abdou Aziz na ci. bu toogee ba jëmmi jamono it moo sëriñ Abdou ni ko li fi ne lan la mhm. mu ne nàngam mu ne ko joxal diw nàngam joxal diw nàngam joxal diw nàngam ba mu yegg mhm. bu ko sëriñ Abdou joxee ba mu jeex ni ko li fi nekkoon de joxe nañ ko mun ko waaw kay mhm. ak njaboot da nga leen di dimbale ak njaboot ku ko am danga leen di dimbale bu leneen dikkee ñu def noonu lool laa xamoon ci moom waaye ñu jox ko dara mu jël def ci poosam bii musuma gis mu génne dërëm ci poosam loo mas wax sëñ Babacar si wala sëñ Abdoulaye lay wax poosam ba tey bu ma masee ni ma làmbal ma sama poos montar ba la ma làmbal ma sama montar seetal ma ñaata waxtu wala nga làmb montar bi jottali ma ko waaye fam dërëm denc musuma koo gis ci moom loolu laa mos a xam ci moom waaye mosuma xam ci moom leneen ku xam Seydi Babacar si xam nga ni yàlla moo ko teral yàlla moo ko may yàlla moo ko cëral noonu la dundeek doomi aadama itam wax dëgg yàlla mhm. mas na maa déggee mu ni man ba ma xàmmee ba nëga ni mhm. mosuma fàttaliku fu ma defee yàlla lu dul noonu mhm. nee na moo tax man Babacar du ma ñaan yàlla mukk mu delloo ko nee na lu ma ñaan yàlla mu nangul ma ko ah. ndax fàttaliku ma fu ma mas a tooñe yàlla ba ma xàmmee léegi moom sëñ Babacar si moo ko wax ci làmmiñam loolu nag ñu ko mën wax bariwul ndax am na ñoo xam ne fokk ñu jaar ci ndaw bay ma may itam sama wàllu diine rek la ma daan soññe satala gu may jàppe moo may ma ñëw mun ma boo julli da jàpp ma ni ko waaw mun ma kon nag fa bu fekk benn nit a ko nuy teg ko ci wetam muy satala gu ndaw ma ñu mun ma jëlal kooku bon mhm. fu ma toll yi daf may ñaax ci sama wàllu diine ak ni ma war a dundeeg jaami yàlla yi ak ni ma war a dundeeg samay bokk wax dëgg yàlla mhm. noonu laa dundeeg moom mhm. ba ni ko yàlla sunu borom bi yóbboo bi mu nekk bi nekkee ci lalu wér a déemit wax dëgg yàlla kenn nekkul woon nag moom suñu waajuru jigéen nekkoon nag moom mhm. lu ko rax muy njabootam gi mhm. mu ne ma sa papa tëraayam bii du ma nangu mukk jàmbur ñëw gis ko mhm. doom yi mu jur doo nga koy gis ku leen rax muy soxna Asey Malick mi mu bokkal ndey ak mu niiru muy jarbaatam mu ni ma mu niiru aw xeetam mën na koo gis waaye amul keneen ku mu nangoo gis Serigne Babacar ba xëy yàlla yóbbu ko incha allah kawar gi mu mujj a wattu keroog ba mu koy wattu dafa mel ne sa papa day daf feebar bopp bi sëq da waaye wool Alaaji Jóob mhm. Alaaji Jóob a ko wat mhm. mu moom soxna su mu jël leeli we yi ba mu set wecc mhm. daal di koy tëral mu tëdd mun ma sa papa tëraay bi du ma nangu kenn kenn kenn gis ko noonu la ko suturaale ba ni ko yàlla yóbboo ah, ba mu fi nekkee Serigne Babacar da ko daan wax ñaanal ma yàlla ma jiitu la ndax boo ma mujjee boo ma jiitoo man duma xam na may def njaboot gi te yow bu ma la bàyyee njaboot bi dinga xam na ngay doxaleeg ñoom noonu la dundeek moom mhm. ci sutura mhm. kenn xamalu leen dara mhm. wax dëgg yàlla noonu la ñu nekkee lu mën a xew seen diggante it naa yàllaa koy xam waaye jaamu yàlla xamu ko Serigne Babacar la xam moom lay defal njaboot ñu ko yàlla joxoon it sutural dundeeg ñoom ba xëy wi ji waaye amul leneen lu ma xam ci moom lu du loolu yàlla defoon na itam bu xëyee suba balaa dara dem ci gémmiñam ndoxum xorom may jëkk dugg ci gémmiñam dama amoon xorom mas àddile bi moom laa daan sebet ba set ma def ko ci pot mhm. bu ma xëyee seeyalal ko tuuti mu naan lu muy mos door koy mos bu dee weeru koor it mhm. bu sexee tàndarma bi ndoxum xorom mi lay def ci gémmiñam jóg julli mhm. lu muy mos mos ko ku néew lekk la ku néew nelaw la ni mu néewee lekk noonu la néewee nelaw mhm. doo ko fekk bëccëg mukk mu tëdd ci lal di nelaw déedéet ma ngi ca saal ba lal sajaadaam sajaada boobu muy lal di julli bu dee wéer wi kenn du ko gis ah masuma koo gis man li ma dund ak moom masuma koo gis masuma mhm. koo gis benn jamono ah yu ci bari nag mhm. ko ko daan toppatoo ndax mhm. sama yaay bi mu jëmee mag dafa wéradi ba pare nekk ci régime bu lekk gi pare damay wax de ma tool sa papa ma toggee ba sóor mun ma amee kolle man ko kan mu ma bul joxe sa baay lekk yére yu tilim mukk yére yi nga doon toggee man ko am ah, ma bu ko serwee sa papa boo sóoratee sa añ demal nga sol yére yi set Mm-hmm. door a ñëw yekk sa añu papa dëj ko ma door a dem yekk dëjal ko mm-hmm. mu mos ca la mu cay mos mm-hmm. ku néew lekk la ku dal la ku teey la itam nag sëñ Babacar Si na meloon may yàlla la ñu ko xam ñëpp xam nañ ko ñu ko xamal itam dégg nañ ko ci ñi ko xam loolu laa xam ci moom ak di ma ñaax ci sama diin sama wàllu diine rek toppatoo sa julli mhm. jaamu yàlla def nii def naa yooyu lay digal njaboot mhm. ak yar bu mat sëkk ak teey ak dal mhm. loolu laa xam ci moom ah ñi fi nekkoon samay mag itam noonu laa doon dundee ñoom ndax loolu lañ ma digaloon ci ñoom dama noppee gis samay wajurit bàyyi wuñu ma wax deug yalla mo tax xëy na kuy dund da nga ñaande waaye lima ma bari wu mhm. ndax na ko sama wajuru jigen daan digal rek Ami Collé bul ñaan nit ku bax du ñaan mhm. ñoomi daaw ñu nek sax ma ñaan leen wax deug yalla ba xamé ni sama wayju dem na mhm. te déssawuma kenn ñoom do nga laa déssé ñu yor ma yor bu rafet bala ma soxla ñu fajal ma soxla sa fa ma tok la ma jabo di fek jox ma la may jox cheikh tidiane la jox lii wala abdass la jox lii wala keneen la jox lii loola bala ma koo faja samay soxla ba mu jeex sax leneen fekkaat ko fa wax dëgg yàlla noonu laa dundeek ñoom ba fii ma toog nii noonu laa dundeek ñoom wax dëgg yàlla ah soxna su kan ko xam ne tarbiya ba ko bàyyi waxoon moom la nekkee ci kër Cheikh Seydi Aj Malick ba xëy wuy ji boroomam noonu la fi nekkee uuf njaboot gi boot leen kenn xamul lu Serigne Babacar si am kenn xamul lu Serigne Babacar si ñàkk ndax bari na ñoo xam ni bu ñu nekkee nit sëriñ mu nuyu sax daan wax boroom mbaxana moo gis mu feeñ mhm. boroom musóor a ko feeñal mhm. te wax na dëgg ndax xëy na njaalbeen mhm. du jékki-jékki rekk neex waaye nag yàlla def na mu suturaal mu nekkaloon ba ñu xëy ñoom ñëpp ñibbi ca yàlla kenn xamul leen dara werante sax musuma dégg ñu def ko wax dëgg yàlla loolu laa ma sa gis nekk mujj na xale yi ku ciy def dara sax sama yaay da la naan demal waxtaan ak sa yaay ba xam lu mu lay xelal boo ñëwee wax ak moom mu ànd ak yow ñëw ba ci sama papa ne ah xaw ma ne mu ne aw ah, maa ko noonu xam de ndax xay na am na ci loo xam ne yaa ma ci ëpp xalaat noonu lañ mas di dunde ba nit ñu xëy dem ba ñu demee it ñi fi nekkoon noonu lañ doon dunde yor njaboot gi di leen dimbale ci li leen yàlla yu wërsëgal wax dëgg yàlla taal leen seen ndeyjoor bi jëmee ko ci njaami yàlla yi di def te yàlla tax donc loolu lañ mas a yore kër ga kër gi it wax dëgg yàlla ñu ngi yàlla seen borom nekkatuñ fa waaye njaboot ya fa nekk njaboot soxna mu xayri see ne wax dëgg yàlla ñu ngay taxaw nañu war a taxawee di def la seen ndey daan def ndax bi sama yaay demee ba wéeradi mhm. soxna mu la sam woo ñu ko dama bëgg nga aw sa yaay ci waañ wi ndax léegi mag la te wérut soxna Sukanda daan xëy samp siisam ba ca waañ wi bu fa jógee dañoo togg añ ak ba pare mu door a ba mu demee nag ba wéra di ko sama papa boobu soxna moom ñu ko dama bëgg nga aw sa yaay ci ndax léegi mag la te wérutul soxna mu taxaw ca taxawaay bu raw ba ca soxna Sukanda taxawoon di ko doxal nam ko war doxale ànd caag kontaante feebar na sax Serigne Abdou yóbbu ko hôpital mun ko duma fa ci service Serigne Babacar di dem. ba muy daanu ca waañ la daanoo. Mhm. foofu lañ ko yëkkatee. Mhm. waaye boo ma seex rek mu duma fa ci service Serigne Babacar di dem. Mhm. ci Serigne Babacar yàlla defoon ko muy koo fonk xam ne dafa fonk doomu aadama. daanan jékki bay julli gee mu dégg oto buy sikkar. woo maasis maasa daan lijjanti gan ñi. ah oto boobu door a ñëw dafa mel ni seeni borom àll la ñuy yendu. nga dem mu dem seet ah, xam naa ne añu ñu de boo demee seetal umu xayri ne ko bu ma nee fexe ba ñooñu mos dara ba la ñuy tëdd de ñuy jëpp-jëpp ci guddi gi di togg reer di jox gan ñi bu fekkee guddi na ba guddi fekk nit ñi tëdd bu ñuy nodd njël yéen a marsis ñu ko demal nga ni soxna umu ñooñu ñëwoon doon si kër ci guddi de àll lañ fa naan na fexe bañ teele a ndékki sëñ kër moom doomu aadamaa ko yitteeloon mhm. wax dëgg yàlla mhm. taxawaayam ci nit nit yilif na ay nit ba tàyyi sax te doo ko taxaw lool moom xam naa ko ci moom ku bëgg doomu adama la ku fonk nit la itam sëñ Babacar daal ki mu mënta jëfanteel mooy ku amul sutura sutura rekk la bëgg nag moom la daan ñaan yàlla itam ñaanal leen ma sutura lépp a ngi ci biir sutura yàlla may na ko kuy suturaal ko ba mu xëy wi yàlla te kenn xamalu ko dara wax dëgg yàlla ah, ni mu yore woon njaboot tamit ku ne xam na ko ni mu doon dundeek jaami yàlla yi mhm. lu nit gàtt gàtt xam-xam xam nga ci dara. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. macha allah lépp lu njaboot soxla bu ko yëgee taxaw na ca nam ca war a taxaw. Mm-hmm. du ko lijjanti di son sëñ Babacar loo ko wax mu ni wol Abdou Aziz léppam sëriñ Abdou ko joxoon. Mm-hmm. mooy lijjanti kër ga. mooy lijjanti njaboot gi. gan gu fa ñëw ñu war laa lijjanti sëriñ Abdou lay lijjanti. lépp moo koy def moom daal ba mu fabee léppam teg ci loxoom. la génn ca la ca génn. bu yàlla dogalee mu ne la it magam yi fi ne ñoom dañ ko ne yow sa service góor gee la ko joxoon kon nag bàyyi nañ ko ci sa loxo ne la ko góor gi joxe woon nga di ko doxale noonu macha noonu la nekkee moom sëñ Abdou ba ni mu xëy xanaa wuy ji góor ga mhm. moo ko ci dindee feebar na lu yàgg mhm. di xalaat mbiri kër gi rek ku mu koy wacce mhm. ndax xaw ma ku may wacce kër gi mu yor ko ah yàllaa nga cee def sutura it dox dëgg ba mu fa jógee ba tey na kër ga doon doxe noonu lay doxe njaboot ñi fa di njaboot soxna mu xayti taxawaaya seen day taxawoon rek noonu lañ taxee wax dëgg yàlla njaboot yaakaaroon Serigne Babacar daan sosi ci kër gi it mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi fay sosi nañ fa daan sose ah di def lañu ñu mën a def njaboot yi taxaw di def la ñu mën a def wax dëgg yàlla dara xanaa jëm ya nga daan gis te gisatoo ko waaye dara soppeeku fa mhm. ci barke Serigne Babacar si ndax mhm. nitu yàlla moom fu mu jógee fa mu nekkoon lañ fa daan doxal yàllaay indi ku wutu palaasam rek xam naa Serigne Babacar kenn mënu koo wutu waaye nag njaboot gaa nga taxaw na seen day daan taxaw wax dëgg yàlla di fa doxal la seen yaay daan doxal macha allah comme ni ko sunu maam waxee sëriñ Abdoul Aziz Al Amine Tijaan yal na yàlla yeesal yërmande ci moom ndax taxawaay bi mu amoon kër baayam kër maamam macha allah waaye maam ndax mënoon nañoo xam sa digganteeg Serigne Abdoul Aziz Al Amine Tijani ndax dégg nañ ni sax boo ko bëggaan dem seeti danaan la déedéet toogal mun ma fekk si la te mu nekkoon sa mag seen diggante yéen ñaar macha allah ndax mën nañ ko xam. Serigne Abdou. xaw ma lu ko sama papa man. nanguwuma ko nag ba mu xëy nele waaye xaw si waxoon. waaye dafa daan def bu ma ko bëggee seeti. Mhm. mu ne xale bi neel aminte na toog ma ñëw. Mhm. bu ñëwee mun ma dafa am lu ma sama papa waxoon ci yow moo tax. laaj naa ko ko laaj nag nangu ma ko xaw ma nag lu ko sama baay waxoon ci man. Mm-hmm. waaye mosula nangu ma jóg seeti ko xanaa bi mu tëlee. benn jëmmi jamono daal maa kon ab Abdou maa man ko maa la gën a woyof. Mm-hmm. ndax boo xëyee mbooloo mi xëy ci sa kaw suba ba ngoon doo a lekk sëñ Abdou du du añ. Mm-hmm. du reer. bu xëyee naan kaasu kafe. nekk ci soxla yi nit ñi. di recevoir gan ba yenn saa yi fa muy toog di waxtaan nag nit ña fa toog ba ñu noddu fajar fekk ko fa boo ñëwee ñun la añam mbaag reeram mbaa ngi mhm. bu ma ne dama laa bëgg a seet si rek mun ma toogal ndax dafa am lu ma sam waxoon ci yow. Mhm. ah loolu nag jéem naa ko jéem jéem a xam waaye nangu koo wax. bu ma ko waxee rek bu ma tooga rek ma ñëw. Mhm. Ah, ba mu tëlee nag ba xam ni mbooloo mi tànc na ko maa kon Serigne Abdou toogal may ñëw. man damay de bu ma toogee diite gisuma la bëgg laa seet ñu waxtaan. waaye mosula nangu ma ñëw seeti ko ba waxee rek mun naa dafa am lu ma sama papa waxoon ci ah xaw ma ci man nag mhm. ba léegi nanguwuma ko wax loolu rek la wax dama naa rek dafa am lu ma góor gi waxoon ci mhm. waa këram it nee nañ bi mu feebaree ba wóolootul boppam ñoom Moustapha ne dénk na ma leen ba tàyyi nag mhm. ba bi mu nelee Moustapha ni man daal sama papa xaw ma nu mu doon jëfanteeg sama bàjjan Mm-hmm. waaye dénk na ma sama bàjjen ba tàyyi waaye sëriñ Abdou mm-hmm. sama dara mu fi la tardé ci loxoom mm-hmm. daaw ko ñaan itam dama daan toog rek nit ñëw ne am lii sëriñ Abdou la ko jox wala oto bi gaare li ci ne sëriñ Abdou la ko jox fa tabaarakallaa bu julli jotee saaku lay jël dana ko sol ay piis ba mu fees del piis yu góoru yu jigéen ñu yóbbul jox aminte ni ko ma ko jox njaboot gi mhm. li mu mujj a teg ci sama loxo nelaw matul weer wóor na yàlla ni gannaawam laa ko seet mhm. ba ko ndaw li indi sëriñ Abdou la ko jox mhm. booba yaram wi tàng na ndox te tabaski ga la gannaaw booba mënatul dara sax gannaawam laa ko seet waaye sëriñ Abdou wax dëgg yàlla li mu daan jëfanteeg man njaboot yi daanañ jëfanteeg man sëriñ Cheikh na jëfanteeg man sëriñ Mansour ñoom ñëpp waaye ni mu daan jëfanteeg man kenn du ko ci jëfante moom dafa amoon ci man yërmande Mm-hmm. dafa amoon ci man xolu yërmande rek. xaw ma nag lu ko sama papa waxoon waaye ba tey nangu ma koo wax. Mm-hmm. bu ma ko waxee rek mu ni ah sëñ Babacar wax dëgg yàlla suba gi mu xëyee ne la wax dëgg yàlla yére ya mu fa naan woon ñu fóot ko. Mm-hmm. woowul sax yàlla def ci moom la ko soob. yére yi ñu wéri ko jox ma ma garde ko ba dëj ba jàll. simis ba Pape Mali nga fexe ba ma jox ko ko. moom moo mu ni sëriñ seexu ko nangoo ci moom waaye turki ba mi ngi ma denc ni sama waa kër bis boo yàlla jëlee buñ may sàng nañ ko boole ca càngaaye mi ngi ma denc sama arwaal def ko ci benn mbuus mhm. ni leen bu ma yàlla moomee mhm. bu may buñ ma sangee ba di ma sàng turki sëriñ Babacar Si bii nañ ko boole ci liñ may sàngi sinis ba nag Pape Malick ma leewaayu woon ba ma jox ko ko mhm. moom it ne dafa demoon di ko woon Serigne Cheikh Serigne Cheikh nangu ko ci moom xaw ma nag nuñ ko mujj def. ndeysaan. waaye. Mhm. turki daal moom mi ngeen man moom man leen bu ma yàlla moomee daal. Mhm. luñ may defal nañ ko ci boole rek. ndax man. Mhm. samay bokk wax dëgg yàlla. ñoom ñëpp ma bëggoon daal ñoom ñëpp amoon ci man ñeewante itam góor ak jigéen nag ñoom ñëpp. yàlla ma defaloon loolu ci ñoom. ah ma itam wax dëgg yàlla ma soppoon leen lool ndax ma itam ni mu war a nekkeek ñoom itam mm-hmm. laa doon nekkeek ñoom wax dëgg yàlla mm-hmm. waaye ñoom ñëpp ma bëggoon wax dëgg sëriñ Abdou nag da cee rawoon mm-hmm. su ma yegsee ca kaw la may xool defee ni problème laa indi mbaa dara bu ko defee mën ko dama laa gëj a gis rek ñëw di la seet si noonu lañ nekke woon wax dëgg yàlla waaye la ko góor gi waxoon ci man ba léegi nangu ma ko wax ba ni mu xëy dem rek bu ma ko waxee rek mu naa dafa am lu ma sam papa waxoon ci yow booy boo nga toog rek maa ñëw si la toogal rek waaye ba léegi nangu ma wax li ko sam hmm. xaw ma lu mu doon nag ba tey dama ne woon naa ko laaj Pape Malick na ko koom déet ba jotu ko Pape Malick yi ndeysaan moom yàlla na boole woon ba may lu tuuti ndeysaan ñibbisi naa sama kër gi lu yàgg mu ñëw di fi fanaan si sax booba sama yaay ngi dund sax bu guddee mu ñëw tëdd bu xëyee dem moom yàllaa defoon mu bëggal ma boppam waaye bi muy dem ndeysaan demam dafa bett ñëpp ñu waxal nag wax naa ñoom ndax nee nañ nee na leen bi Sëriñ Abdou demee mun leen man daal gént naa mag ñi ñu ne ma am na ko manqué daal te yaa ko war a mottali <laughs> gént naa daal sëñ Babacar si mu ni ma am na ku manqué te yaa ko war a mottali si mhm. man nag ragaluma dee dee ñu fàtte ma laa ragal waaye ragaluma dee ah Pape Malick yëguñu ci dara yëguñu feebaram ba ñoo xëy xëy rek mhm. ndax da dëgg yàlla dégg ni dem na mhm. loolu donc lañ ci xam naa nag mag ña dem la doon mottali ji xëy na noonu la demee waaye ba léegi nag Serigne Abdou xawma lu ko sama papa wax ci man nanguwuma ko wax dal bama guna ko waxe rek mo na am luma sam sama papa waxoon ci yow waaye nanguwuma ko wax ba naka ni sha allah serigne Pam malik deg nañ ne sax burdu tektal bourdou daan na ci kër gi ziar si mam ñu tëju ñom ñaar waxtaan digganteem nak serigne Pam malik tam lan la ndax commencé won na ko léegi li tax serigne Pam malik dal def déplacement ñew fi dal di tëjoog mo waxtaan ak jubo dong nak waxtaan ak Pam malik ba muy ndaw rek la yalla def mu takk ba bëggal ma bopam ndeysaan mm-hmm. bi yalla dogalé serigne Abdou nelaw itam mu ñu xamna serigne Abdou bo waxtaan nak moom it lu mu ko denk ci sama digënté ak mom mu mm-hmm. ñu def bu gam yu mu fi jotta a fekke ma ñaari gam la xawma ma bu ñuy wax dëgg yalla mm-hmm. dina yëkëti participation jox ma bu kooree dina ma yónnee sama sukaru koor bu ko defé bu ñëwé dañuy bokk tok di waxtaan ak mom waxtaan yu bari daal daal nañ ko ma ak mom mu dem gam gogu la ko daan gis nang ñaari ak ma dem Dakar mm-hmm. ba daaw bi ma feebaree entré ci clinique ba bis bu yalla sak mu ñëw bis bu yalla sak mu ñëw ci clinique ba bis bu né mu ñëw mm-hmm. ben bis dong la ko gis ñëw fa te dafa yebal am ni ko demal soxna teetal ma soxnaam te ni ko dama am course yu ma war a dox. Mm-hmm. moo tax xëy si bu ma ba ni ma génne clinique. Mm-hmm. bis mu ne mu téléphoné. Mm-hmm. ndey asu sama doom ni kon soxna si def mi ngi lekk mi ngi nelaw noonu rek la nekkee woon ak man moom yàllaa nu boole woon ba muy lu tuuti ba naga ni ndeysaan noonu la ma sa mel ci man ba ma xëy rek wóor na yàlla defoon naa ne Pape Malick du ma keroog bañ ma ko tàggee. dama leen di naa dee ñu boole ba Pape Malick suul rek waaye du fi toog mukk mukk mukk ñun mu ëpp naa def man leen Pape Malick man leen naa dem rek naa Pape Malick dem na lu ma fi def ñi ma amoon ñëpp dem nañu kon defatuma fi dara waaye moom yàlla nu boole ba muy lu tuuti ba nag wax dëgg yàlla mm-hmm. loolu daal la woon daal ñëw di waxtaan nag man di ma dimbale wax dëgg yàlla bu ñëwee dindi li ma am ndax ginnaaw sa kër gaa ngi fees de ak i gan te am na ci ñoo xam ne mu ñuy dem fokk yaa leen di jox paas gàmm yu ñëw yëpp noonu lay def dëgg yàlla liñ dund biñ ko jox fii ci gouvernement bi it mu yëpp ko ci oto ñu yóbbul jox soxna Aminta nag wañ ko jox ci kër ga mu yëkkati jox ñu yóbbul jox soxna Aminta yëpp man lañ ko jox ñaari bantam mi fi bàyyi itam wax dëgg yàlla dañ may toppatoo di ma seet ni ma sam papa waxon amna na lu mu waxon ci yow dese wuñu kenn yow dong ndax ni sam papa am yëpp yow dong ya fi des wax deug yalla ñaari bantam yu jigéen yooyu ko yalla may dañ may fàttaliku fu ñu toll di ma to di ma ni ma sam papa da amna na lu mu denko ah, wax deug yalla man dal samay bokk yalla defo dal ñu bëggal ma seen bop rek wax deug loolu mom yalla defon nako ci man xawma nak lan la won ci man waye loolu dal amone sama digeenti ak ñoom ni goor ñi ak ñu jigeen ñi wax deug yalla ñëpp ñëpp ñëpp ba tey njaboot yi ñu fi baye njaboot yi non nañ ma jappé am ci man teraanga itam wax dëgg yàlla macha allah maam ku nekk xam na ni bu ñu nee ziar général njabootu Serigne Babacar ci kenn dessu ci ginnaaw macha allah waaye sunu mam Aminta eh, ziar général yu mu dund ak Serigne Babacar naka la dundee ziar général boobu. ah xanaa taxaw taxawaay ba war a taxaw rek. recevoir mhm. gan ñi. toppatoo li ciy sama waru gar. sëñ Babacar taxaw nit ñi na war a taxawee ñoom. wax dëgg yàlla bu ziar général ñëwee ñëpp taxaw ku ne lay sa waru gar nga def ko ca. booba sax nu mu moo waañ wi dara du manqué. Mhm. sëriñ Babacar it bu waxtaanee gan ñi ba pare. ni leen toog leen xaar daqaar ji dina fekk ñu toppatoo yépp mu dénk safoor yi itam ni leen na ngeen ànd ak dal ndax kenn du yëpp ay nit mel ni ku yëpp ay sayi mat mbaam mu yéex te yóbbu safam moo gën boo mbaam mu gaaw te yóbbulu safam ngeen xam ne ay jaboot ngeen di yëpp ngeen def ak ñoom nànk ba kenn ku ne delluwaat ci njabootam loolu la daan dénk safoor yi di ko dénk jigéen ñi soxna moom ma taxawoon ca waa mi dara muslamanke wax dëgg yàlla xanaa kay day des ñu wàcc ko fa waaye dara muslamanke yàlla defoon na ko muy koo xam ne moom soxna um ña daan jaay ca mbedd ma sax bu lijjantee gan ñi ba pare day woo ni xale bi demal ñooñ ci mbedd mi ku bëgg añ ne ñoo jaaykat yi ca mbedd ma ñëpp ci biir kër ga lañ daan añ wax dëgg yàlla loolu moom yàlla defaloon na ko ko joxe joxe ñam mom lam ci mënon kenn mënu ko ci woon xamna liñ ni dara gënu ko ci liñ ni di jëf mom lim ci def bu ko ko yalla fayé fa tabarakallah non nako yalla bindi won mom soxna um xayri jaamu yalla bu mas a ñew fatna la dimbalé na la taxaw na la wax deug yalla loolu mom cëram la woon loolu la ko yàlla defaloon demone na ba soxlaatul dara sa waañ nga ngay soxla bëggatul dara dara bu gan nee salaamaaleykum jóg na taxaw bu oto gaaree mu daal ay raxas leen ci nii teg loolu moom moom la daan jëfandikoo moom soxna Umu siyaar général ni mu daan tolloog tabaarkàlla ni gan ñi daan mel waaye dara du jeex dara du manqué wax dëgg yàlla moo daan taxawe lépp lépp lépp lépp ba ko sam papa dénkeeg léegi ba mu daanoo ca waañ wa dong la génn waañ wa de dëgg yàlla Arsenal ñëpp daan taxaw ba léegi wax dëgg bu saar ñëwee kër ga day fees dell mel na melon rek ñu taxaw taxawaay bañ taxawoon man legi nekatuma ci kër ga maa ngi fii waaye ñoo daan fekk ci kër ga fi lañ may fekk kër gi day fees dell no Arsenal dina rey ñaari nak fi ci kër gi ndax guddi gàmmu samedi gi ak besu dimanche siyaar bi yëpp. tubaarkàlla boo fi ñëwee kër gi day fees dell. ndax njaboot ya ma xamoon ci kër sëñ Babacar ñu ci bari bu ñëwee dañ may fekk si fii. ak ñi nga xam ne dañoo xamoon sama borom kër muy sëriñ mu niiru bu ñu ñëwee fii la ñu si ci kër gi. ñooñu maa leen di daloo maa leen di toppatoo bu dee gàmmu nit ka saalika naka noonu la ñuy def. ndax dëkk yàlla. loolu moom loolu la yàlla dogal ci kër gi. moom daal daanaka jëmm ya fa nekkoon te dem nga dootul gis waaye dara soppeeku fa. Mhm. dara soppeeku fa. ba tey njaboot ya fa taxawit bu gan nee salaamaaleykum. Mhm. ñu daal di ñëw def lañ daan lamag mag ñu daan def rek. Mhm. noonu lay demee. léegi moom ban woote lay ah xanaa ñëw ànd ak yar nañ daan dikkee ba fi ba fi kilifa yi nekkee. ñu dikkee noonu rek ndax dara soppeeku kilifa yi dem nañu waaye jóguñu fi ndax ñu fi nekk ñu ngi taxaw taxawaayu kilifa yi wax dëgg yàlla ànd ak tey ak dal ak teggin ak yar def nañ daan def ba kilifa yi dund bu ñëwee njaboot yi fi ne wax ak ñoom ndax ah Serigne Babacar fi ne tey wuutu mag ñi sëñ Bay Si Mansour wax dëgg yàlla moom mi ngi doxal ni mag ñi daan doxale ah di def na mag ñi daan def bu ñuy ñëw ànd ak yar ak teggin ak sutura bu ñëwee ñu wax leen la la mag ña daan wax rek dal ak teey wax leen li mag ñi daan wax ñu doxale nañ daan doxale ba fi mag ñi nekkee jox leen teraanga yi leen mag ñi daan jox ñaanal leen ñu yeewee ko ba waxtu wa jotati ñu ñëw wax dëgg yàlla Sëriñ Baye fi ne tey di mag moo wutu palaasu mag ñi ah bala ñu fee def dara ci kër gi mhm. njaboot yi dinañ dem waxtaan ak moom mën mhm. daan waxtaanee ñu fi nekkoon mhm. ba mu teg leen yoon wa mu leen di teg wax leen nañu war a def ñu doxal la mu leen digal loolu ba tey moo fi ne kër gi benn baat rek a fi ne kii jiitu daal luy xew moo koy tëral moom lañuy ñuy waxal moo koy doxal wax dëgg yàlla lu mu leen di def leen nii ñu def noonu lu mu leen tere ñu bàyyi moo fi ne ba tey benn baat bi fi nekkoon mag ñi di ko doxal ba tey moo fi ne. waaw macha allah comme ni ko sunu maam waxee léegi maam bëggoon nañoo xam rek ban ndénkaane ngay jox jigéen ñi nga xamante ni ñoo ngi toog di seetaan rawatina jigéenu jullit ñi. Mm-hmm. ndénkaane ndax ku ne xam na ni léegi jamono jaxasoo na ci lépp waaye comportement ban law jigéen war a am mm-hmm. rawatina ci wàllu néegu sëyam ci wàllu solin beeg lépp rek macha allah maam. mag ñi jëkk ñi dañoo niroowul a gone. Mm-hmm. ndax mag ñi sutura lañ daan ànde Ah, bu ma sé and ak nit bu féké jamono ubi kogul da ngay and ak mom ci sutura bu amé bu khairun bu amul ngeen bokk di jamu yalla ba yalla dik gone tey nak léegi nak alal moy sëy bu njëkk nak sutura lañ daan andé ba yalla ñëw léegi na gone yi tey nangootuñoo boot njaboot sax ku ci ànd ak nit bu ndeyam ak ay bokkam di dund nga ni ko wutil appartement yóbbuma ca walla ñu yem fii mag ñi nag loolu doonul woon seen tiitar li doon seen tiitar moo doon bu ñu àndee yow fekk la nga njaboot ñu boot lee njaboot ga di def lu ñu man ak lu ñu manul ba ba yàlla di dikk xale yi nag léegi loolu lañ dootul muñati mm-hmm. ah surtout la sa mag ñi daan ànde loolu daal daanaka léegi wax dëgg yàlla sama kalaas gi jeex na ci ñoom mm-hmm. daan nga ànd ak nit ba ngeen màggat te kenn du xam nu ngeen di dunde ci sutura rek ngeen dund ndax sutura ca la lépp nekk mm-hmm. waaye bu fekkente ne tey boo ànd nit bu amee tey jox la ba liggéey amul ñëpp dégg ko bu benn askan ñëwee ca kër ga nga ni lii du ma ko mën a nekke demal wuti foo ma yóbbu maak sama njaboot mhm. ah loolu it wax dëgg yàlla taxul ñu ànd mhm. ndax ànd dañ ko daan ànd ci sutura ak teraanga ba yàlla bette leen ko ndax booba mag ñi liñ doon wut mooy am fa koo xam ni bu ëllëgee ku nekk ni ko iskay mhm. gone nag àndati noonu noonu léegi wax dëgg yàlla waaye mag ñi noonu lañu daan ànde iskay léegi nag xana ñi nga xam ni bëgg nañu lu baax tay roy mag ñu baax ñi ñuy jéem a aw yoona mag ña doon aw ki la yalla bolel ngeen di suturaalante ndax de tey day neex ëlëk mu naqari non la yalla bindi adina waaye bu fekke bu neexé tay tubaarkaal la nga ni nonu la bu ëlëgé bu kiwul nga ni du nonu itam loolu taxul kenn di wut ànd ndax ku wut saxna mm-hmm. da nga bëgg ngeen di suturaalante yàlla jox leen njaboot goo xam ne bu ëllëgee njaboot ga yàlla te ko ci yoon ku nekk naa wax dëgg yàlla lii de xamoon nañ ko ndax waajuram day nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. boo nee nag léegi loolu seen yoon newu ci mm-hmm. nu leen neex rek moom daal li leen neex la ñuy boo deful li leen neex ñu teg la fa ñu tege dem seeti leneen mbaa ñu nekk ci leneen mm-hmm. ku nekkul ci néegu sëy nag nekk ci leneen te leneen la ngay ne fekk du lu yàlla santaane ku nekk ci lu yàlla santaanewul nag bu ëllëgee ba dajee yàlla lu yàlla def nga xam ne noonu la yow loolu daal la waaye nag sutural lañ daan ànde ak teggin kenn du leen xamal dara bu ngeen doon maqub coxaat kenn du xam ni cox ngeen di maq bu ngeen doon siim suuf kenn du xam suuf ngeen di siim waaye nag léegi loolu amatul xale yi nu leen neex noonu la ñuy ànde waaye ku ci bëgg lu baax la yàlla booleel dañ leen di àddu di suturaalante seet fa mag ñu baax ña jaaroon ak li leen yàlla may bu fekkee bëgg nga la leen yàlla may nga teg sa tànk fa ñu tegoon seen tànk wax dëgg yàlla ah, ndax suñu waajuru jigéen dégg naa maam safeetu ñag mii mas na koo natt ndax bi muy door a ñëw ci moom maam soxna sukan dafa woo safeetu jóob mi nga xam ni moom la maam safeetu yar ñu ko dama bëgg nga wax ma sa turandoo lu mu bëgg mm-hmm. ndax cër ba ma waroon a jox Roqay Njaay moom laa ko bëgg a jox yaa safee Jóob wax ko ni muy def yëpp ne benn bés maam safeetu di ko làmbaatu moo mm-hmm. demee ne soxna asu na toppatoo cere ji ndax cere ji dafay xajam mm-hmm. day am suuf na koy toppatoo <laughs> ne bañ ko ko waxee mu jéggalu ko am lu mu ko tuubale ni ko bu sooba yàlla cere ji dootul xajam mm-hmm. maam safeetu yónnee ko ndaw ni ko cere ji dara newu ci dama doon seet ba xam sama kudd gi maag Roqay Njaay mën nga koo yor wala déet loolu la ko mun ko cere ji dara new ci uh-huh. dama loon làmbatu doo nga sama kudd gi maa ko roqee njaay mën nga koo yor waaye uh-huh. dara new ci bu doon tey mu ne ah, wax na dëgg de maa def de man koy defal lii mbaa ma di ko defal laa uh-huh. moom loolu la ko wax da ko ni ko bu soobee yàlla dootoo ci gis loola naqari mu ne ko nag cere ji dara new ci dama la doon seet rek ba xam sama kudd gi maa ko roqee njaay mën nga koo yoram déet loolu la mag ñi daan xëcc waaye gone bu nangootu la dëkk ak ndeyu jëkkër nangootu la dëkk ak benn askan. doo tibal goro sax ba mu naan la dafa xajam ak dafa naqari. <laughs> balaa caa nga ni ah wax na dëgg de. <laughs> maa ko def sax de man mi koy def. dëgg la waaye ku bëggul lu baax di nga roy mag ñi mm-hmm. mag ñi naan def lu baax mm-hmm. ku bëgg lu baax di nga leen roy ndax yàlla kat uh-huh. li mu yor mayow ko da koy jaay mm-hmm. yàlla li mu yor mayow ko da koy jaay da ngay jaar yoon wa mu jox la ci jaaroo ci yoonoo mu teg la fee seet ku jaar ci yoonoo mu jox ko ko ku bëgg lu baax dangay def ni mag ñi mm-hmm. waaye tey nag looloo amatul sama maas gi moom tubaarkàl la rek dañuy bëgg daal bu ñoree boroom kër jiital ko mm-hmm. jiitu mu topp ca yoon yolli rek mm-hmm. yoonu la neex nga jaarale ko loolu nag du tax am lu jag loolu du tax am lu baax da ngay jaar ca yoon ma yàlla may la la may mag ñi waaye boo jaarul ca yoon wa a ah, bu ëllëgee loo amit xam ne yaa ko may sa bopp rek su ma sañoon daal jigéen ñi dinañu soppi dëkkin di góor góorgóorlu teg seen tànk fa mag ña tegoon seen tànk ndegam bëgg nañ lu baax la mag ña amoon ndax mag ñi fi am woy tey jii kat dañ koo liggéey waaye tëddun ñi rek yàlla jox leen ko jaaxal rek naan nu ma neex laay def a neex am loola neex yàlla deful noonu kenn du def li la neex am li la neex mukk da ngay jaar fa mag ña jaaroon rek am la mag ña jaaroon wala mag ña amoon waaye boo ko deful ah doo ko am léegi nag daanaka daal gone yor seen bopp ñoo yor yëpp daal am na ci col yoo xam ne wax dëgg yàlla ku am kilifa te déggal sa kilifa doo ko sol man day ku ma déggal am na yoo xam ne doo ko sol ndax yàlla am na lu ma mu na ci jigéen dañoo bëgg nga sàng say cër di sol col gu yiw waaye xam nga sol loo xam ne fa tabaarakallaahu koo romb mu dumóoyu la maa nga jël tubéy nokkas ko taat ba mu fees dell sa ndigg li ne ci biti ngay wëgër wëgër yi defe ni yaa ci ne ah loolu xam nañ ni baaxul man de am na yoo xam ne li may bon bon lépp duma ko nangu ndax borom kër gi nangu koon jigéen ju sol tubéy nokkas ko taat ba mu fees dell jaar ci mbedd yi koo romb mu xool la sol loo xam ne fii la yem sa saxi ween yëpp ne ci biti nga defe ni yaa ci ne di loolu daa tax kenn ñaaw loolu xam nga ni jagu lu bon kenn bëgg ko. jigéen dañoo sant mu sàng léppam. suturaal boppam nit day suturaal boppam. boo suturaalee sa bopp yàlla suturaal la. waaye ku suturaalu sa bopp doo am sutura. te am na loo xam ne du sutura. man day am na yoo xam ne ku ma yilif. mbaa ma dog la àtte nga di ko def ci kër gii ma wax la ko nga bañ. dinaa la ne abal wuti foo ko defee ji. waaw. man bu ma la teree nga te daal moom man la acca demal seeti foo koy defee jiwaay fii doo ko fi def ndax lu nit bon bon daal am na loo xam ni am na barab boo xam ne ku ca ne war ngaa am looy bañ barabu royukaay boo fa nekkee war naa am loo xalaat ak nooy defe te wax dëgg yàlla lu bon bon bon kër yi ko fi ne di sosi ci kër Seex Si Daaj Maalik gi wax dëgg yàlla war naa am loo xam ni war nga koo jombale sa bopp dëgg-dëgg am na col yoo xam ni baaxul sant yàlla ndax am na loo xam ni amul njëriñ ndax am am na loo xam ni góor gu am ful la boo ko gisee doo ko doo soxla boroom sax doo ko bëgg ndax ku nekk lu yiw nga bëgg loo xam ni yiw te newu ca dara newu ca kenn bëggu ko eh kon am na ci ñoo xam ne la ñuy def dara baaxu ci te seeni waajur duñ leen wax dara dara dara dara dara man nag li may bon bon lépp am na lu ma bëgg ak lu ma bëggul wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ndax man la ma xamoon fa ma jóge daal. Mm-hmm. ba tey moom laa xam. Mm-hmm. keppaar ga may jóge woon ñëw fii ba tey. ndax foofa mooy fii rek. ndax borom kër gi da daan wax lii pantere bu ñu sempee ci kër Serigne Babacar ñëw samp ko fii la te muy wax dëgg. kon nag foofa la ñuy la bañ moom nga war a bañ. waaye am na loo xam ni jigéen waru koo def sax. dafa rafetul sax. jekkul baaxul. kon mi ngi noonu jigéen war naa dellu gën a xam gëddam comme ni ko sunu maam Aminta waxee waaye ñu seetlu ni macha allah sunu yaay Adja Umu Kalsoom Mbay moom itamit eh, ak sunu yaay Daba Mbay di ay jàmbaar lool te ñoom seen wayjur ak maam Aminta ñoo bokk ndey ak baay waaye bëggoon na ñoo xam maam ban témoignage ngay def ci Adja Umu Kalsoom Mbay soxna Daba Mbay ñi nga xam ni. ay jàmbaar lañu comme ni nga ko waxee ni nga bu ziar général jotee fa seen wayjur bu jigéen nekkoon ñoom ñoo fa nekk ba léegi macha allah lan nga ñu mën a wax tey ci soxna Kala ak sunu maam sunu bàjjan bàjjan Daba Mbaye macha allah. xanaa di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax sagu Seex Seydou Aboubacar Seck moom la ñu bëgg lu seen maam am ci sag bëgg nañ lu ko ëpp ba seen day demee ñuy ay gone itam dañoo takk seen digg lu seen ndey nekkoon ñu nekk ca ndax xam nañ ne daanaka doom yi soxna asukan jur man dong maa fa des te man ma fa des yàlla muur na samay bët mënuma dara mag laa ñu takk yor kër ga yor di def la seen ndey daan def xanaa jëmm seen ndey ja nga daan gis te gisatoo leen gisatoo ko donc moom ngay xam ne soxna umu nekkatu fi waaye lu leen war ci seen kër maam ga ñu ngi ko fay def bëgguñu dara seetuñu dara xooluñu kenn wutiwuñu dara it amuñu xarit amuñu àndandoo kala mbaye nga taxaw yor daayira ba mu yor daayira ba ndeyam yoroon ñu jox ma ko xam na ni man mënatumaa yor daayira yëpp ma ngi ko boole yor boo ko dégluwoon ci rajo bi léegi mi ngi annoncé siyaar beeg siyaaru baxaak gàmmu yaayam géeg yëpp mi ngi koy annoncé seen taxawaay ci seen kër maam ku ne da leen di ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fa ñu taxawee ko lépp la ko seen waajur yi taxawee woon sutura sëñ Babacar si bu sax faaw rek lañ bëgg sëriñ Babacar itam nee na woon am na koo xam ne fu mu ne bu fa jógee yàlla indi ku ko remplacer nee na këru nitu yàlla moom ku taxaw kër ga boo fa jógee yàlla dina indi ku remplacer kër ga ñëpp defoon nañ ni soxna Umu Xayri bu fa jógee waañoo dana fay waaye tey ji la waañu sëriñ Babacar si gën a taxaw bu gan nee salaamaaleykum ñu raxas ci nee na seen day daan def def ko fa ah taalibe yi fa daan ñëw di fa indi seen barkeelu it ku ko ci yàlla man loo boo ñëwee boo amee sa pot tomate mbaa nga am sa rodi nga ne dama am lii maa ko barkeeloo ci waañ mhm. waaye dama demul fenn mhm. soxlawul dara bëggul dara kala moomee nekk ci wetam di rakkam ñoo bokk nekk yor waañu mhm. ba ndeyam nelawee ba néega ni ñoo yore waañu soxna mu am na lépp ñaar fukki at ci suuf waaye dara soppeekuwuf njaboot ga fa nekkoon na fa ña ngay def nañ daan def di doxal nañ daan doxal leen gan ni ba fa Serigne Abdou nekkee di dund bu oto ne salaamaaleykum Serigne Abdou ñaari gan bu ko amoon sax yokk dépasse ba ne am joxal daba ñaari gan nuyoon nañ fi léegi kat fa tabaarakallaahu di ko jox ba mu fa jógee ba tey daba néewul un néewul an mhm. kenn xamul nu muy dunde kenn xamul nu dul dunde ba nga fa toog mhm. lu ko fa yàlla fekk ci seen barke maam mook umukul soom ñu def ci kër ga ku yàlla def nga bëgg yiw wi itam ndax ku ne xam ne sëñ Babacar Si lu ñu def ci moom yàlla dina la ko delloo ku yàlla bëgg yiwit boo amee sa doomu sable ñëw sànni fa boo amee sa leneen ñëw sànni waaye ñoom ñu nga taxaw taxawaay bu mel ni ba seen day daan taxaw dara soppeeku fa dara dara dara sopp kër sëñ Babacar Si gadee dara soppeeku mm-hmm. surtout na sa fa yàlla defoon ba tey moo fa nekk rek mm-hmm. ñu nga taxaw taxawaay bu rafet te buñ doon yeneen gone ba tey sàqi nañu fu ne ñu jëm fa lu ne ñu def ko njaboot ga tasaaroo waaye loolu lañuy ñuy bañ kër seexul xalifa ga moom yàlla dafay def sutura ba ba àddina di tukki rek ndax moom la borom daan ñaan boo waxee mu ne ñaanal leen ma sutura lépp a ngi ci biir sutura loolu rek la Seydi Aboubacar Sy daan ñaanlu lépp ngi ci biir sutura ñaanal leen ma sutura moom doo nga doonoon ay waxam yàlla da ko koy defal nag ba ba àddina di tukki rek ñu ci seen waañu ma maam wa takku rek mm-hmm. gan gu ñëw ñu teral la mm-hmm. wax dëgg yàlla la seen day daan def ña nga cee def lañu man mm-hmm. ak la ñu manul fa tabaarakallaa nit ñi di leen ñaanal yàlla itam nag lépp ñu ngi koy def wax dëgg yàlla ah njaboot yi fa yàlla def ñu nekk fa itam Moustapha moo fa na yor baatu sëñ Abdou moom la bàyyam bàyyi woon foofu mu toog ah gone la ma nga yor njabootam yor këram waaye nag teewul itam ah lu mu man loxo ma nga ci nga ko cee def wax dëgg yàlla loolu moom am na ndax moom bi mu jàngee ba war a wuti liggéey it baayam da ko wax mun ko damay toog ci sa wet di la jàppale ndax xool naa la wéet nga kenn ku lay jàppale néew fi kon ma itam damay toog ci di la jàppale yenn service yeeg yenn soxla yi lu ma ci mën a doxal boo ma ko joxee ma doxal ko waaye duma dem fenn sëriñ Abdou wax wax mun ko duma dem fenn damay toog di la wéetal rek ndax xam naa ni wéet nga ah. booba ay magam ña nga Ndakaar du liggéey ñenn ñi xëy na tukki waaye moom mu xool baayam ñeewante ko rek ni ko man daal duma dem fenn fii laaj njaboot ya fa daan sos ku fa ñëw ñu teral la suturaal la nekk ak yow fa tabaarakallaahu daal yàlla leen fa yàlla bàyyi ci seen barke maam ba ñu sut seen yaay jëfan dese barkeem ndax seen day jëde waañ wa donga doon itteem soxna umu ba ko sëñ Babacar si dénkee waañ ma ba nagañ waañ waa doon yitteem mhm. feebar na ni du faju mukk ca waañ wa wala daanoo feebar ñu yenu ko yóbbu mhm. ba naga ni fii boobu ba tey nag gone yaa nga takku yor ko mhm. kenn xamul ndax seen day jóge na fa am jógewu fa dara manqué wu fa tabaarkàlla njaboot yo fa nekkoon nit ba tey ñëgam nañ daal doxaleeg ñoom it ba tey noonu la ñuy doxaleeg ñoom rek loolu daal moo fa nekk wax dëgg yàlla dara soppeeku wu fa de fanu gudd daal lañ leen di ñaanal ak wér-gu-yaram rek ndeysaan soxlawuñu dara lu may na lépp dina sutura sëñ Babacar si dem ba faaw rek ndeysaan loolu dong mooy seen bëgg-bëgg de ne man ma fa di seen day amatuma njariñ mm-hmm. ndax samay bët gisatul mm-hmm. ba pare wératuma mm-hmm. kon nag buñ fa nekkee ca waañ wa wee di las la si wax dëgg yàlla ah, bëgg seen sutura sama am sa sax faaw mo mo tax mm-hmm. ñang koy doxalit wax deug dañ ko wara doxalit tay wuñ ca daara deug deug dal gudd fan ak wër lañ leen di ñaanal daal waye ñu ngay ñaan sutura ci seen barke maam mm-hmm. wuñu dara it mm-hmm. lu may sutura su sax rek ko dégg mu na ah, wax deug yalla de la fa nekkon rek fa nekk de bu gan assalamu alaykum daal tek nañu seen ci ñi dañu jox bam surtout daba mbay ma yaayam takk woon jox ko waañ kala mbay nga ca daayira ya da dari boo ko dégloo fan yëpp mi ngi ci siyaar général bi di ko annoncé na ko sëriñ Babacar tërale woon sëriñ soxna umoog mhm. siyaaru altine bi mu ko joxoon nag mhm. ak siyaar bi ñu daan defal sëriñ Babacar mhm. le vingt-cinq mars bi sëriñ Babacar nelawoon siyaar bi ñu ko daan defal sëriñ Abdou tëralaloon neen ko ca ba tey yëpp mi ngi koy annoncé ci ba tey jii ci suba mi ngi koy annoncé ci rajo bi ci lépp ñu ngi koy doxal nañ ko daan doxalee. dañuy ñaan yàlla rek yàlla jàppale leen seen barke maam. amiin waaye doo dem ca seen kër maam ga ba ni dara soppeeku na. Mm-hmm. macha ndax xam nañ ni man mii di ku may sa ndey dara du wax ndax amatuma njariñ. Mm-hmm. wératuma amatumay bët. Mm-hmm. waaye lépp ñu ngi koy doxal ci seen barke maam. macha wax dëgg yàlla. macha allah comme ni ko sunu maam waxee ñu ñaanal leen bu baax a baax waaye maam xam naa fi mu ne toogaay bi mi ngi bëgg a ci yow. ñu bëggoon rek euh, yan kàddu rek ngay dénk njabootu maam sax Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp mbooleem njaboot gi yëpp rek yan kàddu nga leen di dénk waaye ana it yan kàddu rek ngay tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi lay seetaan ak waa groupe Asfiyahi rek ñu ñaanalante ba beneen incha allah. ñu def na mag ñu daan def rek. boole bokk gi. jaxasoo. di diisoo. di xàccandoo di dóorandoo. Mm-hmm. njaboot gi itam di roy ci kilifa yi ñu nekkal. di def lu baax di ko wax jàppale kilifa yi lépp doon benn ndax kër Cheikh Sidi Aj kenn mënu koo xaar ndax Cheikh Sidi Aj Malick kenn la kon nag kenn mënta séddale njaboot gi xëy na am na yoo xam ni liggéeyu seytaan na la te bu ko yàlla jeexalee mu jeex bu ko defee njaboot gi fi des ñu boole suñu bopp àddina li ci des bareetul yàggatul ndax bu ñu seetee ña dem ñëpp dinañ xam ne yàlla bawu fi kenn ah ñun ñi fi des ñu jéem a boole suñu bopp jéem a doxal bokk gi seet nu mu gën a rafete ñu doxale ko noonu ku ci sa mbokk nekk ci dara nga ñëw jàpp ca bu dee lu ngeen war a bokk wax ngeen bokk ko wax bu dee lu ñu war a bokk jëf ñu bokk ko jëf ku fi yàlla teg muy njiit bu dee luñ la war a wax bala ñoo doxal ñëw ba ceew ni la nangam lañ doon xalaat nangam lañ doon xalaat nga wax ni doxale leen nii doxale leen nii wax nu sa xalaat foo ñu jaara lañ jaar fa comme na mag ña daan def loolu laa leen di dénk nee naa leen nit nit def ba mën a ànd ak jàmbur ñi boo ko defee say bokk ànd ak ñoom te nit amul la ëpp ay bokkam man de bu ma sañoon mhm. ni mburoog soo di mel noonu la sunu bokk gi di mel mhm. ndax ak mbokk mhm. dara ëpp ko doole te yàlla moo ko dénkaane ndax boo ko yàlla dee wàcce ci suuf mbokk dafa jooy yàlla ni ko lan la mun ko boo wàccee ñu dog ma yàlla ni ko ku la dog ma dog ko ku la jokk ma jokk ko loolu la yàlla wax ci mbokk ne ku jokk ak bokk ma jokk la ku ko dog ma dog la xëy na am na yoo xam ne liggéeyu seytaan la lay doon waaye bu ko yàlla dindee lu ca des bakkan lay doon bu ko defee nag bu ko yàlla dindee nga dindi ko li des ci dund àddina yàggatul ndax ku seet ni nit ñi di demee léegi ak yi xew léegi di nga xam ne àddina li ci des yàggatul ah comme sunu boroom sang bu tedd ba da ko noonu du tëdd ci suuf ñaari junni at loolu la yonent bi waxoon yàlla ni ko bu ma demee ñaari junni at duma ko tëdd ci suuf léegi yonent bi tëdd na ci suuf téeméeri at junni at ak ñeent téeméer a xaw ba lan kon xam ku ne xam na ne àddina la ci des bareetul te bañ ko nit ñi laaj ni àddina kañ lay tukki sang ba da leen ah yàlla waxuma kañ lay tukki de xaw ma ko boroom a ko xam mhm. waaye dinaa leen dénk yoo xam ne bu ngeen ko gisee xam ne àddina la ci bareetul bu fekkee te ni kersa amatul sutura amatul maandu amatul bu ngeen ko gisee ci àddina bu ngeen yi boo xam ne léegi àddina jeex te loolu jeex na léegi kersa amatul mhm. sutura amatul yërmande amatul kenn yërëmatul kenn mhm. kenn tànneetul sa mbokk ba dimbale ko mhm. ah kon nag lam waxoon mi ngi ñëw kersa gone it amatuñu kersa men na mag ñemeetu la tudd gone ndax daan nga gis gone juróo ko sax mu juum def lu nga woo ko ni ko kaay nangam ak nangam du sa cër defal nangam waaye gone ko ko wax tey mën la ba ma sa dooma ma yées defal nangam ak nangam yow nag moo xoolam mag ñi xamoo léegi leen ni ñu fi mustee ni ñu seytaanee mm-hmm. ba menn mag ñi méttu la woo gone ni ko dara waaye man bu ma sañoon ñun ñii mm-hmm. di njabootu Seex si daaj Malick mm-hmm. ak njaboot yi sosi ci kër gi te dañoo bokk ci kër gi bëgg Seex si daaj Malick ñu boole suñu bopp di xàcceendoo di dóorandoo di nasandoo di nocceendoo mm-hmm. loolu de laa leen dénk man day bu ñëpp melee ni man mm-hmm. man de lu ma mën am ànd ak samay bokk ko gënal mm-hmm. na yàlla lu ma am ànd ak ko gënal te sama waajuru jigéen bi may gone gu jigéen nekk ak moom dafa ma amee kolle man ko amuñ ma booba soxna faat si man soo dégg fii ci kër baay mun ma del dem ci sa bokk yi ndax soxna umu xayre ngi mag la léegi talatu a dem ci mbokk soxna sëy bu wératul yow mii di ndaw tollu Farsi si Mansour a ngi nii sa kër baay del def leg léegi nga dem yendul ko sa kër bàjjen roq yaa ngi ni sa njabot ma fa ne nga di fa dem ndax bëgguma nga tok say bokk defe ni mala tere tama duma la tere say bokk worna yalla li soxna asuka digal na mako ba tay ah yalla dogal na it sama bokk wax deug yalla ñëwa ci sa juuyool de xamna baral degam ndegam ci nit mhm. ndax wax deug yalla man lu dul jàmm jàmm ma ko gën mm-hmm. lu dul ànd ak samay bokk ànd ak samay bokk ma ko gën a mm-hmm. te ma leen di wax na nga def ba ma nekk jàmbur ñi boo ko defee say bokk ma neeg ñoom ma neeg jàmbur te ma neeg say bokk ak mbon dong la mm-hmm. waaye na def jàmbur ñi ba ma nekk ñoom boo ko defee say bokk ma neeg ñoom wóor na yàlla wóor na yàlla dafa am bis ma dem jaa paate bay gaañu ma jaale ko wëññeeku ñu mën a sa papa Abdou ngi fi ma jàdd nuyu ko jaale ko ni wërañ ji dem mu xale bi daal di may dab no wil sa papa ma ñëw mun ma jikko bii ne ci yow yàlla na ne ci nun góor ñi xam nga lu ma lay ñaan boo ma soxlaa ci sa kër nga yónnee woolu ma sama papa man ma daal di dee man ah papa bu ma soxla soxlaan demal wal ma Alaaji Abdu moom lu muy nirool man ko xanaa xamoo ni gone yu góor yi nga xam ne maa seen mag sax bu ma leen soxla woon dama leen di fekk si <laughs> waaye du ma yónnee di leen woolu mm-hmm. dimbale ma rek boo ma soxlaa ci sa rek mm-hmm. nga yónni gone ni ko <laughs> demal wol ma sa papa man ko loolu de laay mujj a def <laughs> yaasu fee ngi nii ndey sam fa waxee ma sam papa day def fa waxee ni ma yaasu fi man ko amun ma royal sa mag roy aminta royal sama fa ba léegi da koy wax naan man yaay sama xalifa ma ko waxee man ma yaay sama xalifa ndax sama papa fu mu toll daf ma daan wax safi man ko man ma roy leen seen mag roy leen ci amit waaye man da ci am yoo xam ni dëgg-dëgg daanaka mhm. amul solo ndax jarul la topp sax ndax nit ñi wax dëgg yàlla mhm. ku leen topp doo jubóog yàlla sax waxuma say mbokk loolu la am na ci ñoo xam ne ku leen déglu mhm. doo jubóog yàlla sax waxuma say mbokk te ànd ak say bokk tàggale la ak say bokk man moom laa dul nangu kon nag ñun ñii nga xam ne ñooy njaboot gi des fi mag ñi dem nañu ñun ñu fi des ñooy defaral suñu bopp man lank li nit ñi bëgg duñ ko def boole suñu bopp di àndandoo di nasandoo di noccandoo bu ko defee nit ñi dootuñu amatu lu ñuy def ak di ko wax loolu la waaye bu fekkee buñ la nee nangam ci sa mbokk nga daal di koy déglu bu ëllëgee keneen ñoo wax lool rek te wax dëgg yàlla nit ñi am na ci ñoo ne loolu doo ngay seen yitte mhm. jaxaseeg boole doo ngay seen yitte bu ko defee na yow yaa leen di bañ a déglu ndax tàggale ma ak samay mbokk ba pare ànd say mbokk laadul laadul nangu macha allah te looloo fi nekk léegi macha allah macha allah mu mel na xanaa ñu dellu di ñaanalaat sunu maam yal na yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér macha allah ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax taxawaay di rafet na lool. waaye maam bëggoon nañoo xam rek euh, lan ngay ñaanal télévision Asfiyahi bii nga xamante ne ni sa doom moo ko jiite euh, muy El yi maam Omar Ndiaye ñu bàyyi la rek nga tàggatoo télévision Asfiyahi. yal na leen yàlla jàppale ci seen barke maam. fu ñu bëgg a àgg yal na leen fa yàlla àggale. yàlla mosal leen ci seytaan ak pexe noonu. defal leen teraanga ci seen barke maam yi musal leen ci seytaane ak borom seytaane képp kuy doxal seytaane yàlla defal leen sutura daayi man sutura bi seen maam daan ñaan yal na leen ko yàlla defal defal ko képp kuy julli te leen ko yal na yàlla barkeel la ñuy def te yàlla musal leen ci seytaane ak noon barke sëñ Babacar Si barke maam Seydi Hadji Malick barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal leen yàlla téyel boppam seen barke maam daraja yonent bi macha allah mbokk yi kon defé naa ni ko déggandoo macha allah sunu sohna soxna aminta si xalifa ñu ñaanal ko yarna yalla do liko ko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mak mu baax mak mu bëgg njaboot macha allah ku ko xol gis ci mom soxna astukan way juram bu allah yar bi suñu mam babakar si def ci moom macha allah ku ko xol le gis ko yarna yalla yàlla ko yalla may ko gudd fan gu and ak wër mom ak njabotam yépp allah ñu baax lañu ñu yaatu lañu waye it ñoo def émission ba juk té nuyu wuñu suñu bajjan yu bax yi nga xamné fuñu tollu ñoo ñi ñoo di seetaan titéro di ñu di jiital ci suñu bajjan bajjan Fadima Muntaga Tall ak njabotam yépp ñaanal ko jamm ak sutura macha allah ko bàjjen macha allah bi rafetna tay fi ma génn ci orange sama bajjan Fadima Muntaga mo fi aw ñi ngi koy nuyu bu baax baax diko ñaanal jamm ak sutura nuyu noni tam lañuy nuyu bajjan Sahaba job ñu yobale ñu gëw famille Omar yépp waaye su nuyu sunu bajjan bajjan Farsi si dabbaax mu baax mi macha allah ak njabotam nuyu bajjan eh, farsi Habib nuyu bajjan Farsi Jamil macha allah sunu yaay aja adam doy sunu yaay aja ummu sambu bu am Amsata sunu bajjan Umu Amira soxna kantum si Malik macha allah soxna yu bax yu yep ñu nuyu ñep ziar ñep bu ñu limé ñen ñi rek ñu balel bi geew ñu ci des ñep nuyu nañu mbooleem njabotu mam Cheikh Sidil haji Malik waye tamit di nuyu njabot gi nga xamne mom lañu fekk si ci kër gi ñi yembal émission bi ba mu yemb jital ci sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ mam a Sarr allah ak euh, sëriñ Mansour sar mu bax ni ñaanal leen jamm ak sutura ak seeni soxna nuyu tamit euh, soxna Ndayasu sar ñaanal ko jamm ak sutura momit ak soxna Umu khayri Jaw madame sar ñaanal leen bu baaxa baax nuyu soxna Ami jey ak soxna Ami Gueye macha allah ñu bax lañu fekk nañ leen ci kër gi ñu topato ñu teral ñu dalal ñu macha allah. yal na yàlla defal ñëpp jàmm ak sutura waaye Ndijaay Mansour Kane Kaneen moom itamit jàpp na ci émission bi ñu nuyu leen bu baax a baax sant sama caméraman Seydina Omar Fall mu baax mi macha allah nuyu nañ ñëpp waaye nuyu tam waa xadara bu tedd bi di waa Tiwaawan bu ñu nuyoo suñu papa Serigne Babacar Sy Abdou daf ñuy yóbbaaleel géew mbooleem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick kon nuyu nañ ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ba beneen yoon incha allah. jigéen ju baax jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam baax nangoo mooy cëram bisimilaay may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diineem ngoram di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam